nag euh, notable à Yoff. tey jii ngeen ñëw fii nii euh, si diwaanu Yoff vraiment pour ñaxtu la nga xam ne bii mooy seen terre yi nga xam ne da ngeen jàpp ne état du Sénégal daf leen ko war a restituer gannaaw ba ñu toxalee leen laaj euh, bu baax. tey dafa nekk bés bu am solo pour ñun léegi ñun waa Yoff Ngor Wakam tey euh, suñu si invitation Seyna Issa bi nga xam ne bii mooy porte parole comment dire je collectif bi euh, moom lañ ñëwoon répondre ndax cause la boo xam ne bii cause la boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun lébu euh, li nga xam ne lii mooy li fi xew je pense que Sénégal xam na ko moom di xam nañ ko aéroport bi dañ ko yóbbu Diass li nga xam ne li mooy terre yi nga xam ne ñun suñu maam yi ñoo ko moom moomoon je pense que man je suis très bien placé pour wax ci. parce que ñun am nañ fa lu mat euh, trois titres fonciers yoo xam ne yi ñun ñoo ko moom muy waa Ñingeen waa Njéeneen ak waa Ndiireen ñu moom terre yooyu donc bu fekkee par exemple état dafa soxla ay teeram dafa soxla suñuy terre jël ko pour utilité publique ñun mënuñu lu nangu parce que loolu droit wu état la mais bi ñu demee ba soxlaatuñ ko war nañu mën a jàkkaarloo ñi nga xam ne ñii ñoo ko moomoon ñu delloo leen seen terre négocier ak ñoom bien sûr que état effectivement euh, daf ko titré woon parce que dañ ko ko jox euh, mu titré ko à son am benn euh, kii titre foncier état mais boo demee ba yow soxlaatoo. war nga ko mën a delloo ñi nga xam ni ñoo ko moomoon donc loolu mooy cause bi nga xam ne bi ñun ñëpp tey mooy suñu cause te vraiment war nañ ko mën a défendre ba am ci gain de cause si njëkk ak teraanga ñun xulawuñu xastewuñu kii woon ñu dara li ñu intéressé mooy li nga xam ne bi mooy suñu droit ñu delloo ñu ko loolu daal mooy yi nga xam ne lii moom ñu koy. voilà on revient un tout en français par rapport à la situation qui prévaut dans la commune de Yoff. Mhm. par rapport au déplacement de l'aéroport de Yoff à Diass. actuellement la communauté de Yoff réclame ces terres qui de droit. donc quelle est la position de votre collectivité. voilà je vous remercie. Euh, la collectivité vraiment euh, est en train de défendre une bonne cause et euh, qui intéresse euh, toute la communauté lébou. parce que c'est des terres qui nous appartient Et euh, comme c'est des terres qui nous appartiennent, l'État en avait besoin pour une, autre, utilité publique. Euh, comme, comme maintenant ils n'en ont plus besoin, je pense que ce qui est plus sage, c'est de remettre les terres. Bien sûr que l'État avait déjà immatriculé ça à son nom. donc une fois que Euh, l'utilisation qu'il en faisait n'est plus d'actualité, nous, <laughs> ce qui est plus sage, c'est de nous remettre vraiment nos terres. Donc c'est ce qui a amené notre déplacement ici, sur l'invitation du porte-parole du collectif des intérêts du village de Yof Ngorwaka. C'est ça.